C'est la mariée qui demande, c'est uh-huh. léegi. waaw naa dafa wax lu rëy. Uh-huh. dane Mia. dama bëgg nga way ndax sama xol set la ba pare. kon yow defe naa ne sa diggante Mia. waaw du li indi. da ko bëgg. waaye bëgg nga nag ku baax. ku ñëwee ci yow doole tey. bala moo way da bàyyi mu jox la sa kàddu ba pare su paree way. gaa yi dolli def leneen ndaxte sama doom gis naa ko fi mu nuyu ñëpp nuyu ma sama doom yàlla nga eggaleeg sa sago ku joxewul cër doo am cër mais nga may jox cër moo tax nga jël micro di ma nuyu na la yàlla defal jàmm léegi dafa am lu xew Dieyna daan def lu rëy lan la def dafa am lu mu def ak day toj Mia jërëjëf sama rakk ji si ba jàmm soxna si soxna tey bu nu bésub jey naa bu ñëwee biir sama rakk ji yàlla na nga gudd fan xam na lu tax ma ñaan ko hmm. dama ñëw sa studio may sama am lu ma soxla nga ne ma tijji naa buntu lépp bu la neexee sax bul sañ wax. dëgg la Ndiolène. di yendoog man di fanaanoog man te bés boo gis bés lay xaar boo ma fayloo woon ma fay dem parce que li ngeen di def defe naa ne man maa leen ci jiitu te ñaawuma ci xarit bi benn yoon. Ah, déedéet kon yàlla na nga yeggaleeg sa sago. jëy naa da nga muñal sa jëkkër te fonk ko ca góorgóorlu te xam ne ndaanaan luy sëy jafe na metti na di nga dégg lu ne di nga gis lu ne. waaye na nga góorgóorlu bu baax mel ni sama gi nga xam ne dafa bari jom lool. Hmm. <laughs> mais bi tukki bi jotee tukki nga waaye bi ñibbi si jotee ñëw nga. borom looy laaj ma koy. waaye nag waaye nag bi jël joxe bi jël jotee rek am nga ko ci réew xam nga loo am ci réew mi naa ñu ne ko kuy sa idole mu ne Mia Guissé kuy sa idole mu ne Mia rek laa dañu lay nayale mbaa ñu magale la. mu ne cër bi dama koy jox mi yaa gisee waaye joxu ko fexe nga ba fonk sa ndey fexe nga ba am respect ci nit ñi waaye fexe nga nag ba koo romb jox nga ko cër ci ni nga doon dëgg la rafet day niroog baax noo tudd nga mer foo dëkk nga mer mer gu bari ñàkk la ku am dëkk saa nee na boo fekkee ñaar ñuy xeex seetal ki ci gën a ñaaw nga toj na ba tax xam ne moo tooñ xam nga lu tax na xol ba mel yow la kanam nga mel waaye gis yow koor nag moom waaye nag kooree mu kontaan nga ñëw nag yëgle woo ko kenn danga ne ñu ne taal sama mag ji rek laay àndal ndax moom a gën a bëgg nañu la woon tawoon nga ànd ak xam ne ci farata rek lay jóg umu sunu ménagère bi nga xam ne yàqaloo dara bi yaa gis mm-hmm. bu la neexoon nga di ko defal pestation 250 mbaa nga naan coppet ci bii taf ci biir bii na ko rajax waaye yaa ko jàppale te nag kaay ma wax la ñaar ménagère mën naa sarax artiste. dëgg la ko fi mu war a dem rekk lay dem li mu war a def rek lay def nga fonk liggéeyam teg ko place. jëy naa mais yaa nee na noonu mën a toy dëgg la xam nga lu tax dañu jël cër jox mi yaa te jotul bés bi fii luy doy amu fi. ku yàkkamti demal tëddi. dëgg la Jalle. mariage u artiste bi. damay doxal ba mu neex te yi taxaw yor micro bi tant que joxuma leen micro bi ko nangu kon ku rek nañu nañu def la paix rek def ba mu baax. lii ma yor nag ma jëm si ci Dieyna jox ma. te jël ma ko. ëlbatil ma mi yaa gisee sama rakk ji dafa ñëw li ma ne la léegi am nga ñaanu yaay doo torox dëgg la sa baay da laa fóotal doo tilim Babacar waaw lii ensemble or la pare mi yaa gisee moo ko jox rakkam Jeyla mi nga xam ne artiste yi bari na waaye da ne mi yaa rek laa laa taamu Jeyla kado baa ngi nii mais yaa jox ko ko gars yi jël leen photo ana sama rakk sama rakk yi xale yu baax yi leen jël leen jël leen toog leen jël. toog leen dama leen di neexalaale ndax danoo garaaw. asi moo tax ma naan leen jël leen noonu lii xaaral xaaral ñu xool leen journaliste yi jël leen ak a ñoo baax xale yu yaru nag xale yu bari maanaa ñi ngi ñuy toog. wala ñoo xëy di ma bindal dara ñu ngi nii toog dañuy bind de Babacar dañuy xëy naan jol ay ca jox ma lii koofur la nee na Jeyla ewaay eh man de Jeyla rek Jeyla sama doom ji sama nuroo waale nee na biir bu la mayee yaayam may ko sa yaay tubaarkàlla yëkkatil ma koofur bi ci kaw coffre bi nag ku ne xam ne fi mu jugee fan la jugee ami Chanel mu baax mi nga xam ne lu mu indi ci réew mi griffe la dëgg la diggante Amérique ak Canada la koy la koy jàmmee ba mu saf dëgg la indi ko ci biir réew mi te dara ñaaw déedéet moo ko jox coffre bi jàppal mu ñëw andi ñaar fukki junni cent mille ñeent fukki junni ñu deux cent mille juróom benn fukki junni trois cent mille ci bi yaa quatre cent mille téeméeri junni cinq cent mille ci biyaa six cent mille six cent mille ci biyaa gisee sept cent mille sept cent mille ci borom lay laaj huit cent mille million. may bakk yéen un million ci sunu waa ji un million. Assane Seck un million bi laay mooy